ci jël lump la te li gis nga lu yéeme mooy yàlla dafa def ci monstre yooyu pouvoir ak doole joo xam ni mën nañu lekk plus de mille personnes te day mel na lekkaguñu ndax ay bi yàlla lañ moo tax alquran indi leen muy yaajuj ak maajuj bu ñu continuer eh, di di di di lekk di détruire àdduna bi niñ doon yàqee suuf ci jamono ni ba mu parke leen nu ko raw la ñuy continuer di di yàq suuf waaw continuer di yàq suuf continuer di di di exterminer ñi ñuy dajeel te daañuy dajeek ay nit ndax boobu dina am ñu fi nekk waaw immeuble yi buñ ci buñ ci dalee ci benn immeuble bi daanu day mel ni lii tubaab yi daan tuddee ay dinosaures nga xam ni depuis de millions et des millions d'années gisatuñ leen ñoom nag ñoo ëpp dinosaures xam naa tubaab yi sax bu buñ leen jàngoon dëgg daan nit ñi boo moytuwul ñoom ñooy maamu dinosaures yi ndax ñoom ñoo leen juróon ndeysaan ñu commencé di détruire lu nekk ci seen kanam ñu détruire ko waaw noonu la ñuy continuer di détruire yàlla bàyyi leen fi ci année boobu ñuy détruire àdduna bi nam leen neexe waaw di détruire nit ñi nit ñi di daw di làqu ñu di leen jàpp di leen lekk noonu la ñuy doxali mujj di dund ci àdduna fan leen parqué woon génn nañ ko léegi ci àdduna la ñuy dund ku nu gis lekk la waaw immeuble bu ñu gis daaneel ko noonu la ñuy continuer ba année boobu jeex année bi nga xam ni moom mooy seizième année bi buñ duggee si di septième année bi nga xam ni mooy dernière année bi avant la fin du monde yàlla daal di yabal ay picc yàlla daal di yabal ay picc picc yi dañuy mel ni ay genre dragon dragon yi bu ñu bu ñuy yooxu di cracher safara picc yi bu ñu génnee ba ci asamaan bu njëkk yi picc yi xay bu la ñuy jóge ndax ay malaayika la ñu jël yàlla moo leen jox jëmmi picc picc yi kenn ku ca nekk boo xoolee loosam loosam mi ngi rëy ba mel ni loosu gëléem picc yi génn ba tiim àdduna daldi brousse benn ngelaw ngelaw loo xam ni dafay mel ni ngelaw loo xam ni eh, ngelaw lu ñuul la comme kuy lakk pëna booy lakk pëna pëna nii ci plastique bi xet bi ngay sentir ci tàngoor beeg ci eh, xet bi ni mu wexe noonu la ngelaw li di mel picc yooyu bu ñu crashe ngelaw li ngelaw loolu mooy ñëw ci monde shahadi ci adduna su ngelaw li ñëwee nag fekk na yaajuuj ak maajuuj lekk nañu lu bare ci ay doomu aadam yàq nañu lu bare ci ay place te seen gabari ni ñu toll ak ni ñu reyee ñoom ñu commencé di respirer ngelaw li suñ ko respirer nag dañ ci aspirer quantité gu bare suñ ci aspirer quantité gu bare mu jàpp leen ngelaw li mel ni ngelaw li mel ni genre genre gaz toxique ci seen biir yaram mel ni gaz toxique ci seen biir yaram ñu taxaw ba yàgg rek seen biir explosé biiru yaa juuj mooy njëkk explosé ma juuj biiram explosé ñu daanu ci côté océan Pacifique fi mu